lay waxee ak yow nii douane tey am na lu ëpp ñaar fukki milliards par rapport ak objectif yi nga xam ne moom lañ ko laajoon donc amuñu fi mu toll nii ay jafe-jafe waaye nag suñu liggéey tamit dañ koy teg ci yoon il faut que buñ xoolee ni am na loo xam ni méngoo méngoowul ak yoon bi nga xam ni moom lañ jàng ñu jéem a euh, xoolaat loolu càmbar ko xool li nga xam ni moom la ñu yoon laaj ñu teg ko ci parce que ñun administration la ñu te administration comme ni ngeen ko xamee yoon lay dox donc bu yoon amul rek vraiment ay jéegoom du de a donc de ce point de vue vraiment ce qu'on def aussi dañ koy def ngir askan bi parce que peut-être bu doon suñu bopp lañ fi nekkal tey ji kenn duñu n'est nekkuñu contre kenn parce que nous, opérateur économique yi yàgg nañu transitaires yi nga fiy gis peut-être depuis 20 ans maa ngi avec ak importateurs aussi depuis 20 ans am naa façon fonction bu est fii Et ay xarit laa ci am ay am di jàmm vraiment liggéey bu rafet la def di jiital nag intérêt état ndax loolu rek a ñu fi teg xam nga coow li parfois li may wax rek réeroo amul ñàkk waxtaan a am parfois nga bi ñu nee valeur de correction rek yaa gars dañu yaakaaroon ni ay valeur la yoo xam ni douane da koo imposé mais en réalité douane imposé wul dara dañ leen ni koo xam ni da nga importé jaar ci yoon nga am AV am yi euh, euh, am aussi li ñu naan attestation d' importation mën nga ñëw nga déclarer directement même bu dee li nekk sa facture moo gën a valeur de correction yi mais nag boo jaarul foofu douane aussi dafa am ay mission du la bàyyi rek ngay déclarer lu la neex bu ko defee euh, li waroon dugg ci keesu état bi day wàññeeku nañ waroon a protéger aussi suñu industriel yi duñ ko mën a def loolu tax tout le temps douane di teg ay valeur ay éléments la yoo xam c'est pour tout simplement apprécier li ñuy déclarer ñëpp xam nañu nag parfois informel déclarer lu xaw a euh, touti valeur de correction yoyu, mais tant que djegoul dayo souvent douane da ci xawa